woo lauréats yi nañu gën a góorgóorlu ngir ñu mun a relever défi wax leen ni ci ISM bii ngeen jàngee am ngeen formation bu bokk ci formation yi gën ci àdduna bi kon boog amul aucune raison pour que ngeen war a bañ am ambition yi ñëpp di am fi mu nekk nii da ngeen di war a wóolu seen bopp. leader et pionnier waa groupe ISM ubbi nañ yeneen filière ci wàllum digital ngir jàppale ndaw ñi ci wàllum xëy. seen rubrique seen xalaat. en fait El euh, Hadj Mansour man ci mburu bi laa bëggoon a wax. Eh, chef de boulangerie ñoom seen bopp la ñuy kaasal. mais ñun ñi nga xam ne ñooy distribuer mburu mi ci point de vente yi. ñoo leen gën a sonn ndax ñun kenn joxuñu suñu cër. amul benn benn livreur boo xamante si mi ngi la laan mburu maa ngi siy gagné lii wala maa ngi am lu ay pertement kese. salaamaaleykum wa rahmatullah waa D-Media ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara. ministre ñi nga xam ne suñu borom daa dogal. Euh, ci wàllum ginaar yi lañ nekk ak bi tax yokkaay bi demee noonu ndax euh, bu heure bi jotee ñu bari dañ ci doxe ñàkk seen liggéey ndax ñenn ñi dañuy matal seeni bànd moo tax bu nu mënoon di dimbali wutal ñu ay chambre froide ba nga xam ne bu ginaar yi matee état bi jàppal nañu jënd ko mën koo di ko jaayaat ci marché bi donte ginaar ginaar gu nekk bu ci état bi dàqe benn trois cent moo gën ndax euh, li ko baana baana yi di jëndee si ñun yomb na te liñ koy jaayate clients yi seer léegi léegi ñu jëndee ci ñun ginaar deux mille wala mille neuf cent da ngay dégg ci marché bi ñu koy jaayee ginaar trois mille kon euh, ñoo ngi sàkku ci état bi mu jàppale nu ci loolu taxawunu ci ay chambre froide jàppale éleveurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullah. chauffeur AFTU depuis 2014. lu ñu naqari nag dañ ko am ci suñuy kilifa su ma waxee ci suñuy kilifa day déparé ci ministre di transport directeur transport terrestre ak directeur AFTU euh, du statut ndax lan. depuis tataay wàcc 2005 am cahier de charge moom wàccaaleel ñu jël ko teg ko fële dëgg la ay chauffeur ak ay receveur ay contrôleur ak régulateur nekk ci terrain bi di liggéey pendant seize ans di daw ci benn affaire di ko jaar ci yoon lakkuñu taaluñu kenn déggu leen ci benn dégât di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen itam def leen ni ñoom ngeen yónnee ñu seen yaay vidéo ci whatsapp groupe des médias Fatou Abdou waaw ki ki ki wax ci mburu mi moom xam naa ne Mansour njóobeen bi dina foog ne mburu mee tax waaye dama bëgg rek eh, eh, eh, xam nga dañu fi amoon ñoom ay jafe-jafe ba daje woon ak le ministre du commerce ñu wax ci structure du prix du pain 150 francs ci 90 grammes yi nga xamante ne moom la ñu war a moom la ñu war a jaay mais mburu mi tey boo ko jëndee xadi xam ne li ci nekk xob kese la te moo ne ñoom dañuy wax ne dinañ jaay 2 millions de miches de pain par jour loolu tey boo ko multiplier par 150 francs ñaata la war a jar boo xamante ne ñoom également nañu am yërmande ci ñi nga xamante ne ñooy askan wi parce que tamit askan wi euh, dañuy dund ay jafe-jafe am na famille yoo xam ne bu ñu xëyee daañu jënd fukki kilo mburu wala juróom bu ñu jàpp rek ne euh, dañuy am ay petite famille yu jënd benn kilo wala ñoo xam ne bu ñu bëggee ndekki dañuy dem jëndi croissant ñu bàyyi xel ci loolu nga xamante ne mooy jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel et que ci bu ñu jegee ay période yoo xamante ne nit ñi dañuy soxla mburu di jëm ci seen ay dëkk ñu bañ di ko brandir te fas yéenee waxtaan ñoom ak ñi nga xam ne ñooy autorité compétente yi pour que ñu a indi pexe parce que nag TVA bi dañu ko mbasi mu moo ko waraloon donc raison yi war a tax tey ñu war a wax yokk mburu man dina tey sama xel et waxtaan rek laa jàpp ne moom mooy pexe pour ñoom ñi nga xam ne ñooy boulanger yi ak meunier yi ak ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu commerce njaayeen yaa ngi lay yaa lay jaajëfal bu baax a baax dañu bëgg mburu di ko jaajëfal bu baax Fatou du Ndiaye jaajëfal itam El Hadji Mansour Diop ak euh, Abdoulaye Mbow ak yéen ñi ñu doon seetaan ci seen TV doon ñu déglu ci Zik FM dig daje bi incha allah ëllëg lay doon